ak euh, décentralisation économique boobu président bi ñu fal il en est conscient. Mm-hmm. te dina ci taxaw. Mm-hmm. Euh, ñetteel ba ñu élire un président bi nga xam ne euh, c'est c'est quelqu'un qui n'a jamais fricoté ni fréquenté les plus hautes sphères de pouvoir de notre pays. Mm-hmm. maanaam il n'a jamais été DG il n'a jamais été ministre il n'a pas été dans l'entourage direct d'un président. maanaam nguur moom wax dëgg yàlla du sa du sa réalité. c'est quelqu'un bi nga xam ne c'est un homme du peuple c'est un homme bi xam ne qui arrive euh, à la sphère la plus élevée de l'État et njort nañ ne c'est c'est pour servir et non pour se servir ndax bëri na ñi xam ne ba ñu ñemee nguur nekk ministre ñu jékki-jékki seppi seen loxo ci bool bi la ñu soog a mer dem ngem bu ji créer parti pour jéem a ñëwaat xool ñu lekkee donc yàlla dimbal nañu moom loolu nekkul ci situation boobu euh, quatrième nag on a élu un président bi xam ne pour une fois il avait mis en avant un projet c' est quelqu'un bi nga xam ne nekkul di def un focus sur sa personne bañ na ko am na ñu bëri ñu jàpp sax ne c' est un président par procuration je dis que c' est pas un président par procuration c' est président au vrai sens du terme hmm. c' est un euh, structuré très équilibré un homme intègre bi nga xam ne euh, qui a de la suite dans les idées un homme d'une probité extraordinaire bi nga xam ne vraiment ñun dañoo dafa yell jamono bi ñu am yaakaar aujourd'hui ci réew mi. kon ñuy wax loolu dañoo juum. dañoo xamul sax parce que euh, arab dafa wax sax naan nit ki soo xamul. Euh, seede ci moom sax tooñ la ci tooñ la bokk donc am na ñu bëri ñi nga xam ne ils n'ont ni fréquenté l'homme ni suivi l'homme ndax euh, même dans la coalition Diomaye président dama si gis ñu bëri ñi nga xam ne mosuñu ko woon gis avant muy génn kaso il l'avait jamais vu gars yi xamuñu ko woon fréquenté wuñu ko woon donc vraiment am na kumpa bi nga xam ne sénégalais yi am nañ ko si jëm jooju waaye jëmm la bi nga xam ne euh, Seydina Jibril képp ki nga xam ne jaxasoo ak moom xool ko gëstu ko di nga ko naw di nga ko sopp te di ko jox cër waaw ñett yi daal wax dëgg yàlla man mi personnellement euh, jaxasoo naa ak moom ay weeri weeri weer mais j'ai appris à le respecter à l'aimer et à le considérer wax dëgg yàlla gis naa si moom ay melokaan yi nga xam ne man sam bopp aw ma ko donc loolu laa ko nawee wax dëgg yàlla yàlla na yàlla dafa ñu sutura sax dafa mel ni toog nañ dix mois yoo xam ne chaque jour matin ñooy yeewu ñooy lekkandoo ñooy waxtaan ba ngoon ñu toog jël suñu document di xalaat ci Sénégal di bind di tënk waaw donc wax dëgg yàlla dix mois d'affilée koo bokkal chaque jour même hors heure cours ñu ubbi leen may ngeen toog waxtaan ba timis kooku wax dëgg yàlla am na lu bëri li nga xam ne xam naa ko ci sa manière de réfléchir ak yéen dem ci Sénégal donc nit la bi nga xam ne euh, am naa ci moom daal yaakaar wax dëgg yàlla. mais ci li ngeen doon tënk loo ma a baaxee loo xam ne da nga koy wax waaw euh, nit la bi nga xam ne bien avant sax ñi koy def candidat. Euh, Seydina Djibril ñu dañoo nekkoon ci chantier wu di xalaat comment désengorger la fonction présidentielle maanaam nit la bi nga xam ne dafa gëm ni. président il a trop de pouvoir et c'est pas normal ah. xam nga quelqu'un bi nga xam ne qui aspire à décharger le président maanaam bàyyi ay pouvoir am kooku nit la bi nga xam ne c'est pas un pouvoiriste et c'est quelqu'un de généreux euh, lii mooy première réflexion yi Bassirou Diomaye commencé euh, xalaat et donc toutes ces réflexions là on les a portées ensemble euh, chaque jour muy xalaat comme naka lay ñoŋalee la fonction et man gëm naa ni nit la bi nga xam ne qui est très détaché problème yi ñu am yëpp Sénégal par rapport à la boulimie d'une a à vouloir être l'alpha et l'oméga d'un État incha allah duñ ko xam ak le président Bassirou Diomaye Faye donc euh, nit ku exceptionnel la man daal li ma doon ñaan dafa mel ni yàlla nangu na sama ñaan dama doon yàlla bu waa Sénégal umpale euh, Diomaye fay yàlla bu mu leen rëcc dafa mel ni ñaan boobu yàlla defal nañ ko ñun ñëpp yàlla na jëriñ réew mi te yàlla na ko yàlla jàppale ndax gëm naa ni il a besoin de prière actuellement et surtout d'accompagnement. dama doon def léegi benn émission ñu invité woon ma am ku may laaj mu ne ma Bassirou Diomaye Faye nu muy dundee pression. ma ne ko man nag wax dëgg yàlla tooguma ak moom xamuma ko carrément. Euh, tombeek yow nga ñëw koo xam dund nga ak moom dix mois. donc su ma nee laa nu muy dundee pression. Mhm. Euh, xam naa laaj bi bi muy jug li ko waral mooy. Euh, Ousmane Sonko la ñu jiitaloon après Ousmane Sonko délégué ko donc xam naa ne. lu fait que Ousmane Sonko nekk ci wetam itam. ndax du nekk genre benn pression ci wetam. xam naa looloo tax ñu laaj ma ko mais su ma la mhm. delloowaatee laaj bi ci koo xam. Mhm. donc lan nga may tontu. non gëw ma ni diggante ak Ousmane Sonko pression daf ci xaj. ndax euh, gis nga Seydina Jibril mhm. au plus haut niveau de sa vie carcérale mu Bassirou Diomaye bés yu doon am ay procès. yi xam ne bés yooyu ñu doon euh, xalaat wala àtte Ousmane Sonko jour yooyu wallahi azim moom du lekk. Hmm. matin ba guddi du lekk. man maa doon ñëw néegam di ko force des fois di ko génnee lekkam da ko jël maye ko parce que du mën a lekk. c'est une personne qui a un amour extraordinaire envers Ousmane Sonko. Hmm. man dama gëm ni ñoom ñaar politique tappalekat yi laay dégg ñu hmm. ñaaw njort rek pour man di nga jullit. yéen dafa jàngale ni jullit dafa am ñaar. dafa am pessimisme ak optimisme nee na pessimisme bi ko moom. mu ne waaye yéen jullit ñi rafet leen jort ndax yéen tamit bokk na ci xaddis yi mu ko doon euh, bëgg di waxee mu naan xaslataani maa faqahuma cheyun min al xayri mu ne xusnu zanni billahi wa xusnu zanni bi ibadillah mu ne ñaari jikko ngi nii jikko gënu ko yiw ci borom bi mu ne rafet njort ci yàlla ak rafet njort ci jaamu yàlla yi man ñoom ñaar ma xam ne ma koo jël jël sa doom tuddee ko ko. Euh, te nga am sa am sa ay frère am sa am ñi nga xam ne say mbokk. ñoom ñaar seen diggante amour bu extraordinaire moo ci am ku ciy wax daal. na xam bu baax li muy wax te man dama gëm nit ku baax. mooy ku leen di ñaanal yàlla na yàlla jubaleel leen te bañ a ja xaajal seetaan seen diggante. pour man ñu baax la war a ñaanal. mais c'est quelqu'un bi nga xam ne euh, nekk wetam Ousmane Sonko du pression. ndax euh, la force des choses fait que Ousmane Sonko en dernier lieu. choisir na jël choix am teg ko si Diomaye choix boobu du du choix wu ya du choix wu neex maanaam Ousmane Sonko xam na bu baax kéelam man chaque fois yàggoon naa wax gars yi ci kaso bi ne leen man gëm naa ne Sonko ci moom bu roon dem élection ñu ne ko euh, yow ak Diomaye yéenay dem élection Sonko Diomaye lay votel bàyyi boppam man loolu j'en suis ndax am na fi mu ko teg am na ni mu ko nawee xam na rigueur bi na ci Diomaye ak euh, ñàkk caaxaan bi mu am xam na ni mu nangoo liggéey ak xam na fi mu fi ni ko fonke ak ni mu fonkee Sénégal donc vraiment je pense pas qu'il y aura des pressions Sonko euh, est très utile Sonko man gëm naa ni des chantiers yu gën a moo koy xaar aujourd'hui ndax gëm naa ni aujourd'hui on a un africain on a un régional bi nga xam ne y a des crises partout on a besoin d'un homme fort euh, qui fait l'unanimité boo war a mën a jouer les rôles tabaxaat cette CEDEAO la tabaxaat encore euh, honneur Afrique de l'Ouest bi gëm naa ni Sonko a des a des rôles yu ngand yu koy xaar yi nga xam ne vraiment euh, gêner Diomaye wala Diomaye di am pression ci moom vraiment gëmën c'est à l'ordre du jour macha allah jaajëf euh, professeur Cheikh Oumar Diagne nekk tey ganuk Salam Sénégal yéen ñi may suivre ah di internautes ñëpp dinaa lim seen tur incha allah su ma ko mënee ah suñu ko waxtu wi tamit mayee yéen ñëpp dinaa leen lim ndax maa leen koy defal chaque jour di leen ko dikk ah jërë ngeen jëf yéen ñiy nuyu Cheikh Ousmane Cheikh Ousmane mu ngi leen di fay bu baax baax Diarra mu ngi leen di delloo ziara bi waaye ñiy béggee itam kii di kilifa ah kilifa seen waa ji mu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax tey professeur Cheikh Omar Diagne la ñu àndal ah borom palais nekk xam naa di xool dossier yi <laughs> Serigne Mansour Sy Cissé alors euh, Cheikh euh, baal ma ci Cheikh Ousmane Touré donc sànq maa ngi koy wax ma ne euh, def nañu li nga xam mooy proclamation résultat yi déjà sans surprise Bassirou Diomaye Faye ñu ne am na plus de cinquante pour cent maanaam cinquante quatre virgule vingt huit pour cent ah, commission national recensement des votes moo ko proclamé euh, comme li ma laaj euh, professeur Cheikh Oumar Diagne ndax lu la bett la itam. waaw résultat yi am na lu ma ci bett am na lu ma ci bettul su fekkee li président yi am man bettuma toog nañ fii je pense sa plateau bi la woon ci salaam Sénégal ma ne la sondage yi crédible ci dëkk bi yëpp man bi ma gis fi mu placé président Diomaye mooy à cinquante cinq pour cent. Mhm. loolu suñu première émission fii wax naa la ko. bi mercenaire boobu génnaat tamit nee na benn sondage buy def waa passé plus de trente cinq pour cent waxaat naa la ko. nee na amul benn sondage bu crédible ci dëkk bi. bu def Bassirou Diomaye moins de cinquante cinq pour cent. man loolu dama ko gis du lu may làmbat moo tax te professeur